Ndiaye production Fallou Ndiaye et son staff tëgg nga fi ay combat yu neex macha allah vingt une heures cinquante minutes maanaam neuf heures huit minutes dix heures moins deux vingt deux heures moins deux làmb ji guddee na trop Alioune Seye Junior moo ñu wan ginnaaw Mor Kang Kang moo wan kanam ñoom ñaar Alioune Seye Junior mi ngi ñaan Alioune Seye Junior moo ko jiitu ci làmb waaye daanaka. mageew ko lu bëri Alioune Seye Junior Mor xale bu nekk ci làmb nee na bi jóg leen Mor Kang dafa wóolu boppam ne torop mais jàppal ne Alioune Seye ndaanaan la Mor Kang Kang pied gauche Alioune Seye tànk day joor mais Alioune Seye li ma jaaxal ngemb bi dafa am brillant ngemb gi daa am mu ci takk lu am brillant day tàkk di fay comme ay jeu de comme ay bin bin astafurlaa waaw comme yuy dàq rek affaire yooyu ñuy takk mais bii dafa niroog sër waaw ay affaire la de ay tàkk-tàkk daal la takk xool leen bin bin bi astafurlaa xool leen xool leen ngemb bi <laughs> Mor Kang Kang mi ngi koy loxo gauche Mor Kang Kang moo ñu war kanam ba kang du fi am dóor mu ne kang rang kang Fallou Ndiaye merci beaucoup ay affiche neex ñoo fi am Ndiaye production vingt une heures ba vingt deux heures ñu ngi ci làmb ji kenn découragé wul te tawul yàlla bu mu taw ba ñibbi Mor Kang Kang Alioune na ñibbi si jàmm nag bu kenn agressé bu kenn dóoraate bu kenn xeex waaw bu kenn bëre bu kenn mbapat bu làmb ji jeexee bu kenn bëre bu kenn mbapat na ñëpp ñibbi si jàmm suba lëndi la gars yi xuus nànk ci ndox mi Mor Kang Kang dagg na léewtoo bi ndaw a bay di ndaw ma ngay filmé ak njoolaayam ndaw bu duggoon ci géew bi da na bu yàgg ñu ngi leewtoo ñoom ñaar Alioune Seye junior calme mooy mooy sa clé combat yow xale baa ngi koy cokkaas Alioune Seye dagg na leewtoo bi wan de maa ngi ànd sama xel tey kalm sérénité am dal waaw cokki cokki laa indi tey Mor Kang Kang loxo goos Mor Kang Kang sànni na Alioune di ko déglu waaw Alioune Seye nee tekk tey tekk bee lay wan yoon bi de waaye man ndigg bi brillé moo ma jaaxal xaw ma ngeen lii foo ko jëlee attention Mor sànni na Aline dagg na léewto bi arrière Mor dem na jël ko Mor jàpp na Aline bal na Aline Seye junior bu waalo Mor kankang jóge Kolobaat laa ilay lallaa laa ilay lallaa Aline Seye Aline bi Aline Seye bàyyi na bi doon xeex ci kaw Mor kankang jàpp ba mu dëgër la bëgg dóor Mor dóor na Mor dóoraat na Aline ràcc na Aïssa Junior Mor Kangkang da nga bëgg a forcé nooto ay lay la laa ko takk na ko way jàpp na ngeem Aline Seye liggéey na waaw la jeunesse de Mor Kangkang est-ce que dina def différence laay lay la laa na ko roonu na ko jaay na ko doole xale ma koy forcé forcé booy forcé Aline Seye ràcc na rëpp attention Mor daan na ko daan na ko doole ndaw xale ndaw forcé na ko daan na ko arbitre Mor Kang nee na moo daan Mor Kaay c'est un grand champion c'est un grand chemin ñu alhamdulilah ginnaaw ma sant yàlla waaw jërëjëf sëñ bi waaw di sëb sama ñaari waa jiw bul wax de bul wax de demal waxal sa soxla waxal sa lan moo toll sa bul wax boora ngay jooy kang kang ma ngay jooy gàcce nga la ma fii waxal tomba bi daa metti waaw combat bi dafa métti. moo tax mu métti. dama xam ne. combat bi ay weer.